ñu nga gis fi yëpp tëmboon nañ ñëpp tëmboon na mais amaana yàlla li mu def rek moo gën man dem naa trois fois. trois fois nga dem. trois fois si ren wala. si benn weer wi. benn weer nga dem si trois fois. benn weer wi te bu ne 500 la paas ndax lan amatuñu yaakaar si dëkk bi il faut ñu vipp pour dem. Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. sëñ bi ñu ngi lay. ñu ngi lay ziar fay la. daam la daam. avant tout li may njëkk li ma njëkk jaaxal mooy que damay ñëw fii à tout moment def reportage immigration clandestine yi mais bu ma ñëwee même chose laa leen fekk ñi dañuy toog ñi di waxtaan ñi teg seen caayin chaque jour noonu ngeen di dundee la ma waral. looloo fi am sa waay géej gi ñu yaakaaroon jaay nañ ko gañ dañuy xëy géej gi rek toog xaar yàlla ba xam fii dara amatu fi dara maar rabin yaakaar ni sa waay mooy loolu suñu jiite réew mi bàyyi pasar mooy loolu noonu moo tax isaan yi gaal yi bu njëkk na naan ay bool boor kese ñooy dem mais mool yi dem gi ndax mool yëpp dem nan ndax géej gi nan yaakaaroon te gisatuñu sunu bopp la moo si nekk li si ne amatul dara li ñu dara amatu fi parce que tubaab bi jël na ko bëgg seen i dëkk ba tey yaa ngi nii lu mu war a mbaal ñoom ñu mbaal ko def ko mooy loolu noonu bàyyi isaan yi dañoo jaaxle de sa waay moom xama boo xam nit la xama du nit bàyyi booba léegi ñaa ngi ñaxtu bàyyi mën ta jëm benn effort bàyyi fi ba man la sama bàyyi man au mois nga nii nan maa yor. au ngi dañ laa yor. nan maa yor yor sama njaboot. moo la yore. si géej gi laa ko yaakaaroon te mënatuma ko am si géej gi damay xëy ñëw toog fii bu ngoon dawee ma dem sangu ji ñëw toogaat fii xaar yàlla. mais sa waay na de toog nii defoo dara ci borom. waaw weesu na métti bàyyi ndax géej gi nan ma mënatu ñoo dem si géej gi kañ ndax da ngay dem di digal fere jeexam dépasse moo gën a yomba da ngay toog ni xaar yàlla xam ba xam géej gi dina neex bu géej gi nga dem bu neexul nga toog dëxëñ rek kon dina sa toogaay tey caare sur mais ñëpp dem nañ Espagne je mais yéen yéen fi des lan moo leen tere ñi ngay gis fi yëpp tëmboon nañ ñëpp tëmboon na mais amaana yàlla li mu def rek moo gën man dem naa trois fois. trois fois nga dem trois fois. ci ren wala. si benn weer wi. benn weer nga dem si trois fois. benn weer wi te bu ne 500 la paas ndax lan amatuñu yaakaar si dëkk bi il faut ñu vipp pour dem mais li ma dem ne damay échec. sa premier dem sa deuxième dem sa troisième dem ñëwal ci njëkk bi bu njëkk bi ndar laa tëmbee ndar daw nan 4 jours sunu machine mooy lool noonu ñu aññeeku waat toog xaaral yàlla moo ñëw jëkkalu waat. ñaata machine ngeen ñetti machine lañ yoroon. bi ngeen wàññeeku ñetti machine yëpp ñetti machine yëpp benn mooy loolu noonu benn dawul bu baax ñu si doon doon di sox ba ter loolu moo ñu si dimbali ñu teeraat ndar deuxième fois bi fii laa pare waat. mais xaaral première fois bi ndar ngeen déparé teeraat ndar fan ngeen yem. daw nañ ay 4 jours si biir géej mais seen usine yi mooy loolu baaxul. à bu ngeen dawee 4 jours fan ngeen ñemee. lu mu dee dee di nga dugg zone Maroc mais moment boobu teer Maroc gënaluñu ndax boo teeree Maroc situation yi fa amoon noonu tar na da ngay bëgg a doo mën a ñibbisi moo tax ñu ne kon nan forcé teeriwaat mu ndar gi dëkk woon si nan forcé teeraat ndar gi ñu woon kenn ku ne xam mooy loolu yaa xam foo jëm. bu nga paasoon 500000 ah. waaw 500000 laa paas waaw. deuxième dem bi. deuxième dem bi fii laa pariaasee. passaat 500 bi même chose fii tëmba daw deux jours ñu jàppañu ñu essegaat ma ñëw toogaat fii tamit xaaraat yàlla gisaat gaal jugaat passaat même chose dem ñu jàpp ma boobu ba léegi maa ngi toog na mais tey tey bu ma gisaatoon gaal mooy lool te kañ nga mujjee dem kañ. semaine bi ñu génn nii. semaine bi ñu génn nii bi ñu génn nii. bi ngeen mujjee dem fan ngeen dem. bu dem ma sax nanoo génn si ginnaaw gore nii rek. dajeeg gaay gaay daxaañu ñu daw tere teeralaat gaal gi ndar fële bar ñi waaw. ba tey ci biir gaal gi bëgg naa ci am ay renseignement parce que ñu bari ñi ngi naan gaal gi dafay am maanaam ñoo xamante ne dañu dañuy yuuxu ñi dafa am ay dëmm ak ay liir yu ciy wax ak est ce que loolu da nga koy non man loolu gëwuma ko ndax amul benn yoon bu mu loolu arrivé dama koy dégg rek mais mosuma arrivé si géej mais maanaam loolu noonu man gëwuma ne am na ndax boo gisee ku xamul géej. première fois mu yëy si gaal daw benn distance boo xamante ni lépp ndox lay gis ak asamaan xelam mën naa pérdi ba bu ñu jànnexe di wax yenn wax yoo xamante ni mooy loolu noonu boo nekkul bopp rek da nga naan ñii ay rax nan te amaana loolu mën naa bañ a ne ndax jànnexe mooy def loolu ñàkk man miñ géej gi dem ba parce que du nalaw dañuy toog di jàkkaarloog ndox mi rek ay sept kon ñi dem Espagne sept jours def ci géej gi yëpp duñ kenn du si a nalaw nax lan da ngay toog xaar yàlla parce que risque la mais góor yàlla du jël risque na li muy jël lu rek xam na ka na amaana foofu nag moment bii nii foofu nañ tollu nit lépp lu muy def rek jiite si xelam rek nekkul risque si moom ndax toog na xalaat xalaat si boppam xam ne kat lii moom laa war a def kon loolu du risque si moom mais amaana ñi toog di wax na naan loolu risque la mais risque amul sawaay daw ba sës rek moo am te instant moo de daw ba sës sawaay nanoo daw ba sës Euh, lan mooy sa dernier kaddu euh, ak ban message ngay jàllale ñi nga xam ne dem nañ joto yegg. waaw ñaanal leen yàlla rek yàlla jàppale leen amaana képp ku dem ko ne sa waajur moo tax nga dem ndax maanaam mënoo toog fi situation yi sa mère soxla benn wecc te ko mën a gérer doo ko mën a faj tamit mu doo mën a génn dem di ñaani mais amaana yàlla def na ban àgg fa na liggéey moo leen tax a jóg tamit yaa yàlla dimbale rek ba lépp lu ñu bëgg seen waajur ñu defaral leen ko loolu rek laa leen ñaanal tamit te xamal leen nag ñun ñoo ngi ñëw quoi ñoo ngi seen ginnaaw ñun bàyyeeguñu du mës a découragé sa waay woon na Serigne Touba. ñu lay jaajëfal ñu xooli keneen moom itam uh, ci kii bi uh, ci uh, immigration clandestine ba tey mbokk mi moom itam sëñ bi tribunal man Ndiol. naka. njool njool Ndiol tey ñu ñëw fekk la fii même chose ah heure ma ñëwee ngeen toog ah waxtaan kaf fooree naan ataaya lu waral. fii dara. dara jaaxle rek ñun géej la na amul leen lu dul géej. parce que mën noo am beneen métier bu gën géej tamit te yaakaar naa géej société la waaw géej doonatul fi mu toll nii lébu yi rek kaa si jariñu àdduna gépp kaa si jariñu waaw moo tax fi mu toll nii xam nga bu géej gi melee nii dëgër na ñun duñ def dara seen i néeg la ñuy ñëw tëdda ba ñuy tëdda ba sonn ñëw toog jàkkaarloo géej gi chaque jour la ñuy dunda fii. yow yow nag de. Hmm. tey kon yow ci géej gi laay lay laaj géej gi nga xamante ni jaay nañ ko mu am ay jafe-jafe ndax nga ko. ni ñu koy dundee muy kan metti rek metti rek lañ koy dundee parce que dem na ba toll soo xam ne ni muy kan fu jigéen ñi demee ba commencé muy kan di yéeg si gaal di mbëkki kon maanaam dëkk bi metti na quoi metti na trop waa bon ñun dañuy lancer message muy kan si état bi parce que buñ soñoon ñu jàppale nu quoi parce que lii lépp ñoo nu ko teg parce que mën naa ne ñoom ñoo jaay géej gi. ba lii nii lépp am waaw kon ñoom defe naa bu nu jàppale woon booy duñ jël duñ jël initiative bi kenn ku si nekk fi mu nii muy xale ak mag ak ñëpp képp koo gis fii nii bëtam fenn rek la ko teg muy que ni naa mbëkki génn réew mi képp koo gis fii maire ak xale ak paa ñëpp a si yem koo gis naa génn réew mi mbëkki billaahi dafa metti tey euh, nga toog fii euh, gaa yaa ngi toog comme yéen ni ñu koy ni koy defee am ñoo xam ne jaar nañ ci gaal dem Espagne ba ñu demee ñuy def ay vidéo di leen yónnee loolu lan lay def ci yéen. non li muy def si ñun muy kan dara lu dul sant yàlla rek loolu moom dañuy sant yàlla quoi aussi tamit ñi nga xam ne dem nan ba yegg ñu leen di ñaax di leen ñaanal aussi tamit lan fay séentu ak lan fa bëgg yàlla na ko suñu borom def parce que dem na ba toll foo xam ne métti na métti goo xam ne muy kan def naa génn rek mooy solution bi booy yi ma toogal nii yëpp booy yi yëpp booy yi nii dem nañ ba ñëw. te kenn ku si nekk demoo benn yoon ñaari yoon booy yëpp clandestin yi nan ba ñëw mais de kenn ku si nekk demoo benn yoon ñaari yoon daa may dégg mu doon loo xam ne tamit mu metti torop seen yaay di teggi ay natt xam nga di def di daj lu nee xam nga di def maanaam